baax mbégte la ñuy am saa suñu jàkkaarloo ak yéen waaye tey dañu am mbégte ah, dalal nag wala sax mun nañu ne moom ñu dalal moom Cheikh Bara nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal ci chronique yi muy def ah, ca groupe Walfadjri di masawu askanu Sénégal ci tey jii ni nga xam ne noonu la ñu yendoo ah, ci fit na ku dox ci ñenn ci ndaw ñekk force de défense et de sécurité yi bu ko defee rek dañuy daal di bàyyi sëñ bi moom it mu daal di nuyoo ak internautes yi nga xam ne ñu ngi ci biir sans limite TV Cheikh bi ziar nañ la waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi lay nuyu soxna Ngoone euh, di nuyu Pape Ousmane di sama ñaari wóllëre yoo xamante ne yàgg nañ mm-hmm. di nuyu ñi ngeen àndal ñëpp ci ay technicien euh, di nuyu internet yi nga xam ne ñoo nekk sans limite yëpp ak fu mën a nekk di ñaan yàlla jotaay bi yàlla def ko jotaay yu njariñ ak jàmm amin du ci wet comme ni nga ko waxee Pape Ousmane laa ci àndal Pape ma bàyyi li nga daal di nuyu ak internet yi maa ngi lay bu baax di nuyu sunu gan Euh, di Cheikh Bara Ndiaye euh, di kontaan vraiment ci euh, ni mu ñu nanguloo interview bi surtout ci contexte bi ñu nekk nii. di contexte bu bu tàndu ci réew mi donc di nuyu internet yi ñu bàyyi xel fi ci réew mi ak ci bitim réew di wax ni incha allah ginnaaw loolu rek ñu sóobu ci waxtaan bi. d'accord chef bi déjà dañu lay massawu ci fan yi surtout bi nga xam ne dégg nañu ne dafa tàkk ñenn ñi ne déedéet tàkkul moom moo ko taal. Euh, déjà ñu ngi la ci euh, massaw waaye bu fekkee mën nga ci dellu un peu pour euh, wax ñi lay seetaan ndax ñu bari bëgg nañoo xam mbir yi naka la demee woon. waaw ni mu demee woon de su taxul woon ak sax émission bi ñuy def ak nit ñi ma gis nga xam ne sumay mbokk sumay mhm. xarit ak sumay dëkkandoo gëdd buñ ko jox dama ne woon sax soxlawul may toog di ci di ci jooytu ak di ci wax. Mhm. mais xanaa nga leeralaale nit ñi rek ne avant avant avant démb ñuy lakk oto bi ñun fixé woon nañ ne bisu tey bii dinañ def waxtaan man ak yow. waaw dëgg la moom bien mhm. avant oto bi. bi la effectivement. waaw comme nag euh, du jataay bi ne dama leen woo pour def ay janoog taskatu xibaar. pour ñu nii pour ñu leeral woo. waaw non yéen a ma woo a ma woo sax mais xam nga yow suma xarit nga war nañ mën def interview mais pour leeral que ne rek. Mhm. Euh, ca semaine bee la waxoon que ne dinañ def waxtaan man ak yow. Mhm. Euh, oto bi dafa duggaale ci actualité bi kon mhm. mënuñu ko mënuñu ko ci bañ a dindi parce que démb bëri na ay taskati xibaar yu fi ñëw mën na leen soxlawul ma ciy wax mhm. li ko def mooy mm, ab oto la boo xam ne man maa ko moom euh, fii may wax ak yow sénégalais yu bëri tey am nañu ay sénégalais yu ne man mën naa am ñoo bokk gëm-gëm mën naa am bokk ñu gëm mën naa am ñoo bokk ay mbokk mhm. waaye ay sénégalais lañ comme man yoo xam ne ñu ngi jooy seeni doom te pareeguñu am ay sénégalais comme man yoo xam ne ñu ngi ci hôpital yi tëdd ay feebar tëral leen te dara tegu leen ko lu dul ay ay xeetu injustice yoo xam ne euh, fii lañ ko dundee ci Sénégal mm-hmm. am ñoo xam ne ñu ngi ci biir kaso yi tëdd te injustice tëral leen fa ku mel ne Mampaate euh, ku mel ne ay Bassirou Diomaye ak ñeneen i milliers de mille centaine de centaine de sénégalais yoo xam ne mm-hmm. man jàpp naa ne ak ku mel ne euh, Serigne Saliou Guèye ku mel ne su ma xarit oustaz Assane Seck ak mm-hmm. ñu bari ay Pape Ndiaye ay Mati Sarr ñaa ñu baree bari ñoo xam ne mënoo leen a lim ñooñu noonu munu jamono boobu noonu maanaam du jamono bu nit di toogee di jooy ci ab otom bu lakk même bu fekkee lakk bi neexuma même bu fekkee euh, su ma sañoon du lakk mais yàlla def na ko mais bu ma génnee di bëgg a wax ma fekk yeneen sénégalais yoo xam ne ñoo ma gën a metti de fuuf lu leen dal mm-hmm. man dinaa wan na suma suma suma su ma su naqar loolu laa ci jublu woon mm-hmm. loolu moo taxoon pare woon du ma ne woon du ma si wax fenn dama koy bàyyi rek ci loxo yàlla mm-hmm. mais comme nag euh, bi mu amee tamit man bi ma toogee euh, dégg oto bi di corné ma jóg xool ko gis ko muy tàkk parce que booba ay quatre heures du matin la am na ñu ma dégg ñu ne oto bi dafa paan mais oto bi manifestation yeewi ak euh, xaw ma wa F24 bu mujj bii oto boobu ma yoroon. mu mhm. ngi ci réseau yi oto boobu la. oto la boo xam ne jàpp naa ne tamit man du man maay jën oto boo xam ne presque trente million lay jar jël ko di ko taal ci suma coobaree boobu. Mhm. voilà loolu yaakaar naa mm, xëy na niteewu ma waaye sama niteew di ko nag yëgul foofu. dëgg euh, yaakaaruma tamit oto buy mars la parce que oto bi euh, mois de mars fin ci presque début mars rek parce que ci siyaaru lew nañu seen di jàll. Mhm. mën naa wax ne daanaka ci jour yooyu laa ko am. te Mercedes dernier niveau modèle la dernier dernier dernier série yi ñu mujj a defar la. Mhm. daanaka ay trente millions li koy manqué pour nga am ko du bari. d'accord oto bu mel noonu. yaakaar naa ne tamit ak ni ko liggéeyee ak euh, sécurité bi mu am te auto bu bees la def naa ne du am ay panne yoo xam ne da koy masse wala bu ko amee bien avant da la koy signaler te yàlla def na dawal naa ko ci guddi gi wàccee ci suma xarit boo xam ne daf ma doon seet ma yóbbu ko ba juti ba boobu mu jël oto ma wàññi ko waat ñëwaat ba ci kër gi ma gaare ma ñëwee euh, xëy na sax génn boobu ma génn moo tax ñoom ñu mën a lakk auto bi parce que fii kër gi man ak sumay taalibe fi dëkk mhm. Euh, léeg-léeg nit daf may wax sëñ Baara jëlal garde. Mhm. ma ne la man bu ma jëlee garde ban heure lay garde maanaam man kër gi boo fi ñëwoon quatre heures du matin day fekk day mel ni bëccëg am na ñoo xam ne balaa ñu fee mën a ñëw une heure deux heures jot la ñuy nekk. Mhm. bañ julli fajar buñ jullee fajar ñi jàngal dongo yi yeewu nañ tàmbalee jàng bu bëccëg jotee am na beneen équipe boo xam ne ñoom maanaam 24 heures sur 24 man sama kër day fees dell ak i nit. man damay def su. quatre heures jotee damay sangu wérd génn fi jàkka la yenn saa yi ñu dem ubbi jàkka ji mm-hmm. euh, ñu nodd su ko defee yee xale yi ñu jàng njël mm-hmm. diggante yooyu lañ doon def foofu espace bu fi nit lakkee oto mm-hmm. du fi am mais xëy na bii lu yàlla dogal parce que dama génn dem bi ma fekk kër gi ñenn ñi de maa ngi bàyyi sax boo yi di root ndox di waaj pour xale yi yow jàng d'accord euh, léegi nag bi ma ñëwee ma toog di wird ma dégg xam nga oto yooyu boo laalee rek. mu sonné mhm. ma dégg mu sonné pour man dafa ko ci nekk ma ñëw jël ma ma taal lampe bi xool ba gis caabi ji ma fay. Mhm. daal di teg sama wet continuer mu defaat ko. Mhm. ma xam ne kon nit moo ci nekk ma jóg taxaw xool ci euh, balcon bi séen ay tàkk-tàkk. ci laa euh, daal di génn ndànk dem xool fekk ko muy tàkk. d'accord. après bi mu tàkkee man euh, lu ko fay laa doon lijjanti. Mhm. waaw booy yi ñëw nañ bëgg koo fay mais dama leen ne lii bu ñu ko jegee di ko jéem a fay mën naa explose indil ñu beneen problème. bu mm. mm-hmm. gën a kii oto. ñu woo sapeur euh, yàlla defe na xaw xay na yeex na yeexul mais yeex si na ñëw nañ. ñëw nañu biñ ñëwee fay nañ ko. biñ ko fayee man yàlla xam ne ni six heures du matin lañ ko fay damaa daal di sant yàlla dem dem julli sama fajar daal di ko tëdd. Mm-hmm. bi ma tëddee ma ne ah ah lii daal man defuma woon dara daal parce que ab oto la am naa kii lakk na jeex na mais nag bi ma yeewoo fi ko sénégalais yi teg nag wax dëgg yàlla loolu moom man bu ma loolu rek moo tax ma ciy wax. ci internet beeg ci réseaux sociaux Sénégal yëpp parce que bi ma xëyee 9h ci suba suma délégation Serigne muy Cheikh sëñ Moustapha mu Cheikh Sidil Makhtar di xalifa Sëñ Baara nga xam ne mooy jiite tey guy midi gépp délégation am ñoom ñoo ma yee. Mhm. muy Sëñ Ndiaye. ak euh, ñoom sëñ Modou Aïssa sëñ Abdou Samad Mbacke mu Cheikh Sidi Makhtar ak ñoom sëñ euh, sëñ Abdourahmane Mbacke la àndal. mu sëñ Abdou Assis Baara ñoom ñoo ma fëgg sama néeg ma yeewu euh, ma ñëw gis nañ may seet man ci laa xame na sax mbir mi dafa dugg ci réseau yi. d'accord bi mu jeexee rek man damaa dem tëdd. Mm-hmm. mu fayee. waaw mu fayee rek damaa tëdd ba 9 laa yeewu gis ne ma xool sama téléphone fu nekk ña ma fay woowee. ñu ñëw ndokkeel ma mastawu ma ne mm. defal nii defal nii man leen jeex na. d'accord mais est-ce que bi nga bi nga bi bi mbir yi amee parce que sànq wax nga ndogal yàlla ba ci biir nga ni euh, oto bi bi mu yëngoo nga bàyyi bi nga demaatee jàpp nga ni nit a ci ne. Mm-hmm. est-ce que da nga jàpp ni am nañu ko def su dee ni waaw ndax jot nga leen identifier wala déet. waaw loolu dinaa ci ñëw donte ay enquête da ciy am. Mm. parce que bi mu bi mu bi mu kiiwee euh, parce que damay bëgg ñi ñi comme dañuy seetaan naan lu xew lu xew lu xew. ñu xam d'accord mu expliquer un parce que bu dara xewee boo waxul. Mhm. ñenn ñee demee nañoo taxaw ah lii la demee ñeen la demee ku nekk waxtu loolu. Mhm. wax sa xalaat lay doon. bu ko defee man ne man la mbir mi daal sama xam ne ñii la demee. Mhm. léegi bi ma non ci guddi gi nag bi sapeur ñëwee fay ko ba noppi sapeur dañ ma bul dem tant que police ñëwul parce que woo nañ leen. ma xaar leen ñoom ñu ñëw def constant jël numéro bi xool première trace yi parce que am na moto boo xam ne euh, ay tànkam maanaam euh, roue yi gis nañ ko fi. Hmm. waaw. Euh, kër gi foofu gis nañ fi ay roue mhm. léegi man bi muy tàkk tamit man dama wër kër gi xool boo xam dinaa gis dara ma gis boulangerie bi rek ñoom ñoo doon yëngatu. Mhm. mooy ñii di lakk mburu fajar gi. ma gis ko man bi ma gis laajuma leen dara damaa tourné rek ñëwaat taxaw ñoom ñoo dégg tëll tëll tëll ji ñu ñëw. mais oto bi day lakk mu ne ma mu ne ma waa ji mu ne ah borom moto bi de am na borom moto bu fi ñëw ca une heure ne kër sëñ Baara laa xam ma xool ko wóoluwuma ko ma ne ko ma ne ko woo ko woo ko téléphone boo amee numéro mu ne ma moto boobu romb na ma weer quatre heures après mu jékki-jékki rombaan ma dem euh, loolu am naa ko ci après bi ñu xëyee ñu dem xool benn kër goo xam ne ci wetu surtout moo moo blanchéri bi moo taxaloo ñu arrière ko ba heure bi blanchéri bi waxoon mais effectivement gis nañ moto bi mu def nii après mu defaat nii loolu caméra de surveillance yi moom génne na loolu loolu moom am nañ ko ci euh, kon loolu daal indice la après nag bi ñu xëyee tamit wax dëgg yàlla man dama ne woon foofu laa koy yemale rek mu jeex bëgguma woon sax kenn yëg ko parce que du lu du du loolu laa bu yoon bu njëkk ma dund ci oto yaakaar naa am na bis ma ko doon wax am na oto mu am na mu demee noo xam ne ñortu naa ne loxo ko def ma amaat beneen boo xam ne tamit ñaari oto yu daanu daal ci gàttal sama ñaari oto yu këpp ci daanaka matul deux mois yu tegaloo yàqu ma xam ne ma ne ah lii de xëy na nit a def mm. loolu sax taxoon na ma ne bu may wutaat oto de dinaa wut oto bu bu boo xam ne moom du neex a saboté ma wut oto boo xam ne wax dëgg yàlla oto bu baax la ma yore ko euh, bu yàquwaatee comme nii man dama ko bëggoon a boole ca yu njëkk yi rek ak yeneen i insistance yoo xam ne dama koy dund waaye soxlawul may nekk di jooytu parce que amul problème. waaw léegi daal bi ñu xëyee ñoom sa police wax dëgg yàlla commissaire bi ñëw na ak euh, accident euh, nu mu tuddati Isa ah accident bi ñoom ñëwu nañ fi parce dañ fay yendu sax toog fi méttit lu ko. après procureur fay bi nekk fii procureur Rufisque woo na ma téléphone moom ci boppam euh, seet ma ne ma dinañ ci def lépp lu ñu man après moom moo ma woowa moom woowaat euh, police scientifique ñoom itam ñu ñëw waaw vraiment dëkkandoo yi tamit maa ngi leen di sant parce que ñoom ñëpp ñëw nañ waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi gars yi la gis mu rek mën naa wax ne presque amul ñoom ñëpp woo ma njabootu sëñ Daaru Assane moom euh, man tam ñoom ñëpp maa ngi leen di sant d'accord ñëpp suma bàyyi sama maam sama sëriñ sëñ Abdou Khadim Ndiaye xalifa sëñ Daaru Asan sëñ eh, Ibra Baara Ndiaye sama mag ak ñëpp ba ci Sénégal tamit amul fu des parce que ñoom mm. sëñ Mara Niass ñoom sëñ Cissé mu sëñ Babacar senegal daal jàpp naa ne mm. ñëpp maanaam naqaru nañ ko ba ma jàpp sax lii euh, maanaam yëf yi maanaam oto nii ñu koy métti loo sax damaa jàpp ne oto yéegut fii waaye xëy na euh, du oto bi waaye sama jëmm la nit ñi ñoo lay teg foo xam ne bu ñu sañoon jàmm rek mhm. ngay am euh, ba ci sax am na ñoo xam ne du duñu sénégalais lëkkuñu nekkuñ ci réew mi ñu ngi bitim réew fépp mhm. ba ci ambassade bu Amérique mhm. consil bi ci boppam démb téléphoné na ma euh, xamal ma ne gis nañ ko laaj ma nu mu demee ma wax ko euh, mu mettitlu ko moom itam consul consul américain bi dekk fii ci senegal mhm. woo ma ne ma turu turu ambassade bi laa la woowee ak euh, turu USAID euh, Amérique maa ngi lay gis nañu mbir mi ci réseau yi euh, laaj ma nu ma demee ma wax ku ma expliqué ko yi ma ci man a expliqué rek ci gàttal après mu ndokkeel ma ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay kilifa lañ ci réew mi ñoo xam ne ànd nañ ko man mhm. donc kon loolu mooy tax day jar ñu expliqué ko pour nit ñi xamee ko noonu rek Euh, lakk gi moom man man li ma jàpp. oui nag tant que enquête tuñ ba ne la nii la demee. waaye ay doute rek nga mën a am. li ma jàpp mooy dañ ko lakk. waaw mooy indice yi ma gis nag. waaw mais cheikh bi wax nga procureur woote na police scientifique ñëw nañu fi. Mhm. également pour prélever ay indices ak yooyu. Mhm. est-ce que yow si sa bopp da nga déposer plainte. waa xam nga mënumaa wax ne damay déposer plant parce que bu fekkoon damay déposer mooy man maay meree fii dem ba ci ñoom ne leen. nanga mais comme ñoom fii Rufisque la dëkk mhm. te yëf yi dafa siiw itam def nañ seen devoir vraiment ñëw nañ def nañ li ñu war a def ba def lu ëpp lu ëpp sax parce que yàgg nañ fi toog fii man daal man mën naa leen si yéen maa ngi yàq seen dimanche gi ba commissaire bi ma tooñ ne comme ab commissaire du am dimanche ma ne ko ah waaw loolu moom dëgg la yéen moom askan wi rek ngeen fu askan wi liwee rek ngeen war a jóg mhm. euh, du pelante mais dafa am lu nga xam ne man dama leen di ñaan sax ñoom mhm. nañ ko topp ba ma am ci euh, lu ma leer loo xam ne dinaa xam ne ñii ñoo def lii loolu du pour man hmm. waaye dafay nekk pour xam nga Dakar dafa xat hmm. yow sa oto doo ko dugal sa biir néeg doo ko dugal sa biir kër parce que nit yi dëkk nit ñi fu ñu dëkk sax amatuñ ko hmm. bay am fu ñu dëkkalub oto ci biir néeg mën naa wax ne quatre-vingt-dix pour cent ci borom oto yi ci buntu kër yi lañ koy gaare su fekkente ne euh, quatre-vingt-dix pour cent ci borom kër borom oto yi Euh, dañoo gaaree seen oto yi ci buntu kër. Mhm. yàlla dogal benn ci borom oto yooyu ñu fekk ko lakk oto ba. Mhm. yàlla dogal mu nekk lu siiw ba ñëpp jot ci. amul kenn ku nga xam ne tey di nga sa oto te di nelaw lu dul di nga xalaat ne ah man de samay noon wala samay nit mën naa gannaaw lakk sama oto. mais justement dafa mel du yow rek parce que ginnaaw yow. <laughs> non d' waa xaaral. léegi na gis nga loolu bu amee. Mm. su ñu ko toppee di ko topp di ko topp di ko topp ba jàpp ko. Mm. du mën lañ ko jàppal. waaye dañ koy jàppal beneen borom oto bi tëdd yi nelaw mhm. te jort ne mën nañ lakk otom saa bu xalaatee ne mën nañ ma koo def rek day daal di xalaat ne suñ ko defee ñu jàpp mhm. loolu dafa war a nekk loo xam ne askan bi dañ koy gis man boobu résultat rek laa ci soxla nga ci soxla mais bu dee sama jëmi bopp mooy man amu ci amu ci lenn lu may lu may naqar la mhm. euh, xanaa rek euh, alerte la parce que réew mi moom maanaam jàmm ji dafa xaw a manqué mm. jamono ji ak sécurité bi yàlla dafa dogal itam maa ngi sant bu baax euh, Ousmane Sonko. Hmm. ci naka. non woowu ma woowu ma bindu ma seetu ma xam naa sax talu ma parce man problème laa am waaye moom ma fi problème. Mhm. ah donc kon jaakaar <laughs> naa ne moom moom xaaruma mu woo ma mais mhm. euh, ñi ko wër. ñoom itam wax dëgg yàlla ñoom maître Tall Birame Souleye Diop ñoom ñëpp kenn ku ci nekk wane nga sa. taxawaay ci ci moment boo xam ne ñoom ñoo ma gën a xat ñoom ma gën a metti li ñuy dund. Mhm. voilà waa Pastef tamit muy Pastef bi nekk euh, euh, fii nu mu tuddati Tëngéej. ak bi nekk Kouroune. Mhm. ñoom ba ci Kër Mbay Fall ñoom bi bi ñoom sare yor ñoom ñëpp dañ fee daje. waa kay yëgoowuñu Pastef moom damay wax ne rek euh, ay dañoo neex a àndal. Mhm. waaw ñoo neex a àndal. parce que li tax ñu neex a àndal mooy dañoo gore. te duñ la gor. Mhm. te ku la bëgg gor ñu gor ko. d' accord mais mais sëriñ bi waaw. <laughs> wax nga ne yàqule nga yàlla ëpp problème te ci problème yooyu tey gis nañu. Mhm. fitna gi nga xam ne Sénégal moom la yeewoo ba ci jamono ji ñi taalee si oto. Mhm. Ah, taal nañu ko tey eh, kër eh, Abdou Latif Coulibaly. Makhtar Ba mi tam mi fi nekk eh, directeur cabinet président de la République taal nañu këram. ak ñeneen ñoo xam ne ay sénégalais rek lañu nekkuñu sax ci wàllum politique mais am nañ fi ay yàqu-yàqu journée tey bi nga ko jàngatee. waaw man de ñi ma ko jàngate yaakaar naa nag man ak maxtaar ba bokk hmm. waaw ndax maxtaar ñaara ñu wutale dafa nekk ministre di liggéey ci alalu askan wi hmm. bi ci des it mooy dafa nekk parti pouvoir boo nekkee yor ci alalu askan wi askan wi mën nañoo dem jortu ne dangaa jël ci seen alal loo moomul loolu mën naa indi dara soo nekkee parti pouvoir tamit man ngaa def ay acte yow yow ci sa liggéey man ngaa def acte yoo xam ne dañuy gis ne acte yi nga def dafa gaañ ay nit ñoo ña wàññiku mhm. fayu si waaye man yaakaar naa yoruma alal kon alalu sénégalais yi man ab bay caaye rek laa boo xam ne mhm. xëyuma fenn mhm. <laughs> ah eh, tey man samay samay acte jëluma ko di ko jëme ci kaw aw ma droit ne sénégalais yi tey min wi di ngeen tëdd aw ma ne sañ-sañu ne tey diw du génn këram amu sañ-sañu dara ci réew kon donc man defe naa ne lii mën a tax sax ay problème am ba ba am lu dal ci kaw am sëñ Mbaye Thiam wala Abdou Latif Coulibaly man bokku ma ci mhm. wax wax dëgg yàlla bokkuñ ñoom ay kilifa lañ ci réew mi man du ma ci kilifa ci genn wet mais ndax yoon la ñu defee ko anam boobu du yoon mais loolu mën nga koo firi loolu yàgg na Sénégal mën nga koo firi ne lii lii moo tax mais man mi nga xam ne ab sëñ daara donga laa bu toog fii mhm. état war maa jox sécurité man hmm? dem ba mu yàgg man may joteeg état boobu ma mën a jàpp ne xam nga ab état sax ak boo gisee sax maa ngi moytu pour tudd waa APR wala waa Benno parce que euh, ñooñu ak kuréel lañ boo xam ne ay junni man na wax ne ay millions ngi nit lañ. te boo mhm. demee benn nit a ko cay def boo nee ñoom la rek da leen di tooñ. Mhm. te man wax dëgg yàlla tooñ moom yàlla laa dogal danaa ko moytu ba ba fa ma ci mën a yem. waaye lu mën a nekk rek mooy man damaa jàpp ne même man bu ma doon lu ma mën a def man awuma pour kenn ku bokk ci côté pouvoir ñëw di di ma yàqal ñoom liñ leen dénk. bokku yàq bokku ci. Mhm. gis naa nag sànq kii nu mu tuddati euh, mooy Ablaye saw la xaw ma Abdou Sow ki sant Sow. Abdoulaye Sow Koseer Koseer ah Moussa Sow Moussa Koseer nee na. réew mi yéen a woote gatsa gatsa. Mhm. kon nañ ci dem. Mhm. ma kii de bu ma doon Macky Sall dama koy dàq. lu tax mu koy dàq. ah oui que réew mi bu fekkente ne mën nañ koo dénk Macky jox ko budget bi. jox ko police jox ko gendarmerie jox ko la Soleil ak RTS ak lépp mu nangu benn waay génn këram ñëw tudde réew mi leneen Omar Sow la ah? bu yëmbal waaw léegi Macky Sall moom ñëw ne Sénégal émergent ñu war a nekk ci Sénégal émergent beneen waay bu ñu falut ñëw ne gatsa gatsa léegi réew mi nekkatut émergent mais gatsa gatsa la mhm. kon kooku xanaa mu ëpp doole président ci ci dëkk bi réew mi nan la mën a tudde réewu gatsa gatsa te mhm. ki ñu ko dénk woote ko mais pas su nekkee gerte gerte rek président Macky Sall a wax mais justement waaw est-ce que surtout li mujjee wax barki Dembo Ndiaye ci Ziguinchor sababam mhm. caravane bi mu woote woon caravane de la liberté mhm. ne combat final ba ca Ndakaaru lay doon bala ci xew yëpp xew ci xëy na ñëw ci pàcc yi mais est que du loolu ngeen moo nekk di feeñ jamono ji que ñoom it ñu jàpp ni xëy na réponse politique bi mooy ñu xamal leen ni di ngeen ñu fekk également ci terrain politique bi waaw léegi xamale gi moom bu dee man sama côté. Hmm. ñëw di lakk suma kër moom wala suma oto loolu yaakaar naa ay caaxaan. Hmm. waaw parce que man euh, yaakaar naa ligne bi ma nekkee di dox boo lakkee suma oto euh, defe naa ne loolu mënul tere ma wax li ma war a wax wala ma def li ma war a def parce que oto bi olof njaay bi moo wax ne la jiwoo jeexut jógu fa dégg man. Euh, damaa am oto bi gis nga ni ma ko yàlla joxe woon hmm. noonu la ma koy joxewaat ci geneen anam hmm. parce que oto bi dañ ma koo joxoon xaritu Baye mbay mii ku ñuy wax limaamu dëkk ca Amérique mooy ko indi jox ma ko te limaamu moom ma ko joxoon déewut te am na ñeneeni moroomam yu fi ne te yàlla mën na def xoolub keneen mu jaarale ko ci mu jox ma ko dégg hmm. bi ci desit moo yàlla mën na maa may xéewal ku ma am sama sama sama sama xarit benn sama xarit sañu Abdou bi oto bi lakkee ba pare ndax may tooñ ne waa léegi luy solution bi mhm. ma ne ko wut beneen te denc ko bañ bañ koo lakk waaw loolu dong laa ci xam <laughs> fexe ba am beneen te fexe ba ko ba kenn bañ lakk loolu laa ci xam leneen amul beneen solution hmm. te continué ca la ma ne woon dëgg ne ca waaw moom laa la wax ndax du loolu mooy réponse bi non du réponse di dund oui di maa ngi santit euh, am na ko toog fii du ma ko tudd sax dañ ne ñoom waa Pastef yi maa ngi leen doon sant parce que dañ ne woon nañ def ay ah, mm. cagnotte ah ubbeeguñ ko wala cagnotte cagnotte la mooy kër cagnotte bi ñu defalaat tey bëggoon nañ ko nag vraiment woo nañ ma ay ñu bëree bëree bëri ne mm. dañuy def cagnotte tijji ko jàppale la ci lii ak lii ak lii ma a leen mm. sant naa leen ci gërëm naa leen ci parce que nit yàqule alal nga jàpp ne yaa ko war a faj loolu man mënuma ko fay mm-hmm. waaye comme man sama gis-gis mooy ñun réew mi fi ñu jëm mën naa wax ñun waa Pastef fi jëm ci kanam dañoo am ay kañoli kañoli kañoli yu ñu war a def yu mag. yoo xam ne comme yan ak yan yu bari yoo xam ne ci réew mi la war a sotti ko jëm ci buñ ko defee rek dañ koy def ci réew mi ñëpp bokk comme ñun dañoo am kañol yu bari yu ñu war a def ci suñ kanam bal buy rey gaynde kenn du ko dóor mbott bul jël bal bi nga war a raye gaynde nga di ko tiire mbott su leen defee ay kañot ñëpp cotisé ñu jënd ci benn oto jox ko benn nit mu di ko dawal man dama jàpp ne loolu jaru ko dégg nga bàyyi waaji rek mu defaat yi këlam këlamal am oto moo gën. Mhm. kañoon boobu nag denc ko ba bu bu ci kanamee Sénégal dina ko soxla buñ ko defee nga xam ne fu ñu koy sotti day nekk loo xam ne euh, ñun Sénégal yëpp ñoo ko ñoo cee gis seen bopp loolu moo tax nanguwuma kangari parce que jàpp naa ne am na yeneen ñuy war a am ci kanam. yu ñu gën a soxla woo kañam. d' accord xëy na li ngay junj rey gaynde bu ñu ko doon xëy na li ngay junj mooy xëy na euh, Ousmane Sonko bu war a taxaw war a sóobu ci campagne yeeg ci aju mais laataa boobu wax naa la ko sànq. Euh, caravane ah, ah. caravane waaw léegi nag oto bi nag kon noppi naa ci nag waaw léegi oto bi moom <laughs> <laughs> jàll mën na koo cee noppi nag loolu loolu loolu mën na ñëwaat mën na ñëw exactement hmm. yow depuis boobu ak léegi nga ni déggante ak moom sa biir wax nga ko waaw caravane mais fan la ne ndax déggante nga ak moom xam nga ci lu mu ne dégguma ko wax dëgg yàlla dégguma ko gisuma ko parce que man Ousmane Sonko bokkuma ci staffam